looy laaj am na loo xam ne bu jotee doo ko dégg ci mbedd mi kon nag baatu ko am kilifa doo gàgganti ko ci mbedd waaw mu ne nag na ngeen xam seen bokk te na ngeen teey parce que am na koo xam ne ku muy sa kilifa war nga xàmmee war nga teey waaw bu ko defee nag am na lu lu jara bàyyi xel ku ko xeeb yaa ko xeeb mais jarul xeeb di nga baat bi sunu borom wax ci alquran wassaabiquuna al awwaluun walay ku ko xeeb yaa ko xeeb waaye jarul xeeb xam nga yàlla mu xool la moo am naa sama gàññe di kenn jiituwu leen waaw comme kenn jiituwu la ci engagé ci yëf yi bul jiite ñiy génn ci yëf yi am na ku mu jaaduwul ci moom ñëw ni yaa jiitu ci yëf yi ba ñëpp fekk la ca nga wëlbatiku di jiitewaat ñiy génn ca yëf yi kooku dara jaru ko sa baax na am na ñu tëdd ca barzax di bàyyi xel bis boo leen di gisaat baax na de ndax it li ñëpp am mu jaral nit ñi gedd seen lépp bàyyi seen lépp bëgg ko jariñoo ku leen ko yàqal nga bàyyi xel ña nga war a gisee leen ëllëg pour rendre leen compte ndax am na yoo xam ne buñ leen koy wax bañ leen perdre ñun taxul parce que du yéen mbooloo mi yéen a ñu fi bàyyi kamu ñu wóor ni buñ ko fi bàyyi woon yàlla wàcc malaaka yu ko defal li mu bëgg kon nag ñun ñu defal ko ko moo gën di sunu sàkk moo ñu fi bàyyi mbooloo muy bàyyi ñu fi kooku na leen leer tey bu ko defee kon nag baat bi day dellu si muy man di sang yu tedd yi góor ak jigéen aussi yéen baatu kujje kujje ngal la waay nañu ko bàyyi da am na ñoo xam ni seen teraanga seen taar mooy kenn nu ku ne looya rek yéene woon sa moroom ëpple la ca mooy baat ba mu waxoon ci gàmmu ci waawoon maa koy fàttaliku mu ne baatu lu ma la yéene yal naa la ca jiitu ne na bokk kilifa bu baax moo koy maye ah dana kon nag boobu baat ku ci nekk na nga ci def sa yitte ndax koo xam ni bu woon ak moom kenn ku ne da ngay rombanteeg sa morom kon bu taxee kenn ku ne xam sa këru morom sañ ci moom sañ ci ñamu am sañ a dugg këram def fa lu la neex te kenn du ne la teet ah fa asbaxtum bi naamatihi ixwanan wa kuntum ala shafa xufrati min annar fa anqadakum minha fay ngal la ñu delloo si boobu waaye kii toog fii am na lu mu mérité ci ñun te li mu wax ak ñun fii programme bu ñuy réaliser la lu ñuy déglu di ko fi tasu luy ñëw la te ñaari baat yi mu tëje kenn bàyyi ci xel te mun ni am sunu daayira te am sunu parti waxu mag la de kon nag nañ ci travailler ñun ñëpp te travail bi du dara lu dul luy jur yiw luy jur ngëneen parce que it baat bi mu wax war ci démb lu jar nangu la mu ne ma Moustapha am na lu lu kenn dul accepté mooy réew mu mel ni ñu baax ñi fi tëdd war nañoo raw réew yëpp waaye bu taxawaay amee rek mën na nekk mu ngi ñëw na xaw ma nag wolof yee koy wax ni naan bañ naan xaw ma waaj leen fekk na soccet moom jotu ah. ba lu ko jege mu tëb waxin la soo defee rek kon fa tabarakallahu